mbokk xarit yi seetaan ci seen site gfm point sn dal leen jàmm seen biir émission point par point alors tey nag ñu am mbégte ak contentement bu rëy di dalal gan goo xamante ni kilifa la ci Sénégal di opérateur économique je vous nomme Moustapha Tall di commerçant importateur di président euh, MIC DPN mouvement euh, des importateurs et commerçants des denrées de première nécessité alors Moustapha Tall ñu ngi lay dalal di di la remercier ci li ñu recevoir tey yaa ngi ci biir émission point par point. jërëjëf Mohamed man it maa ngi lay fay di gërëm ci émission bi ma invité di rafet rafetlu sa sa sa alors président Moustapha Tall ñu wax tuuti rek ci sa parcours laataa ngay nekk important importateur commerçant fan nga jaar. jërëjëf euh, sama parcours moom du parcours bu compliqué ndax mhm. euh, man ci commerce laa juddu sumay papa suma yaay yëpp commerce la def maa ngi juddoo Kaolack euh, depuis les années 55. donc maa ngi juddoo ci quartier boobu ñu waxee Kassaville euh, jàngee ci école boobu Kassaville ah bi ñuy jàngit nag yaakaar naa ni euh, bokkoon na ci élèves yi nga xam ne ñoo gënoon a brillant ci école ba euh, les cinq premiers tableau d'honneur bi daawuñu ko génn mm-hmm. ah ba tax na aussi njàng mi booba temps éducation bi métti na dañu daan yar dañu la daan dóor dañu la ba yàlla def ah ma jóge foofu aussi def naa secondaire mais soriwuma ci ndax dañu amoon euh, tuuti euh, problème. Mhm. ci sunu magasin. Mhm. ndax euh, suma papa ki nga xam ne suma turando nga xam ni moom dafa yoroon magasin denrée alimentaire. Mhm. am benn jarbaatam bu fa nekkal jarbaat bi nag tukki fekk góor gi jóge Màkka rek mu daal di tukki. bu mu tukkee nag ci guddi gi ñu xëy góor gi ni ma demal ko ubbi ji magasin bi. daal li may jox caabi yi loolu moom dugal ci commerce. bi ma demee it li ma njëkk a def góor gi néewuma boo demee inventaire wala defal lii wala defal la daf ma jox caabi yi rek ma ne ah comme man damay wutu nit koo xam dafa tukki ba ñu jox ma caabeem ni ma naa ñëw ubbi li ma war a jëkk a def wut naa def état des lieux moo am seere nga xam ni man lii laa fi fekk bi ma ñëwee bi góor gi xëy see ma ne ko lii de laa fekk ci marché mm-hmm. marchandise pour ëllëg mm-hmm. bala ñu naan ah bi muy dem bi muy ubbi magasin bi lii ak lii la ma fekkoon man noonu laa ma sa mel mm-hmm. donc ma daal di inventorier magasin bi góor gi ñëw moo xo wan ko situation bi mu ne ma far ko ñu daal def situation générale donc ba may dugg noonu laa duggee ci magasin bi. Mm-hmm. at bu ne ma koy defal inventaire di ko defal inventaire mais ba may dugg ci moom it. Mm-hmm. la ma ko fekkee wóor na ma ni matul un million de francs de capital. parce que ci masalan benn deux chevaux la yoroon comme oto. Mm-hmm. deux chevaux bi cent quinze mille la ko jëndee woon. son papa ko ko jaayee cinquante mille la ko avance mu desul ko vingt cinq mille vingt cinq mille yi moom bi may ñëw fekk na fay guub ko donc man ma nekk ak ko maag moom maag moom maag moom ba bu ñuy tudd commerçant bu gën a mag ci région ba. kuñ ko jiitalul kuñ jiital teg ko ci. loolu laa mën du ma wax sax fi ma fi nga xam ni fa la toll mais daal màgg na ba ñëpp xam ko. te it booba jamono. fu ñu tuddee kawlax ku ñu wax Kaolack boo ne Moussa Watal. kenn du xel xel xel xel kenn du dem ci kenn ku dul man mi nga xam ni maa doon liggéey bi parce que man Moussa Watal laa tudd borom magasin bi tudd Moussa Watal. donc loolu moo indi tur bi tur bu màgg boobu. ma nekk ak góor googu ba yàlla def ay doomam màgg. bi doom màggee nag fekk sama ci place bi. taawam. Mhm. ma jàngal ko liggéey bi ba man nag ba ne ah comme man dama ko doon jàppale te boroom yëf yi ñëw na. Mhm. naa retiré wu pour ma retiré wu it dama ni góor gi comme damay dem dama bëgg nga wut expert comptable bu la neex mu ñëw def inventaire bi ñu def passation de service ma jël alal ji jox ko mu xam li ma ko bàyyee. Mhm. donc ma daal di góor gi ni ma ah loolu daal yaakaar naan jaru ko mën ngeen dem def ko yéen ñaar ñu daal dem def inventaire bi biñ paree ñëw jébbal góor gi kayit yi. la ma fa nekk nag diir 10 ans yi ma nekk moom yëpp salaire bi ma doon fay weesuwul 20 000 francs bi ma fay jógee it joxuma un franc li ma am yóbbaale ko maa la ko jàppale te maa liggéey alal ji ma bàyyi fa doom ak alal ji ñëw ndakaaru gi di xostu mhm. ndakaaru maa ngi fi ñëw 79 mhm. bi ma ñëwee fii di maanaam di jóg ak daanu di mm-hmm. jóg ak daanu di jóg ak daanu ba mm-hmm. taxawal li ma tabax li ma taxawal li ma tabaxal nag li ma ci dimbali ci ma la li ma yaakaar mm-hmm. mooy la ma defal góor gi dama ko jàppale ci liggéey barke bi barke boobu ak ñaan googu xaj na moom a topp léegi au fait Moustapha Tall yow nga ñëw Ndakaaru commencé importation ñu dem ba bu ñu waxee turu Moustapha Tall rek xel yëpp dem ci ceeb wala bu ñu waxee ceeb rek xel yëpp dem ci Moustapha Tall loolu nag nga ko jàngatee <laughs> loolu man ni ma ko jàppee bayre la rek man même bi may nekk xale nekk di jàngi bayre laa amoon bayre lay am daayira boobu moo ma topp ba bi ma nekkee ci commerce Kaolack. Mhm. nee naa la dafa mel ni man rek maa doon commerçant foofu Kaolack fu ñu tourné ñu naan Moustapha Moustapha Moustapha ba am na sama benn maam boo xam ne Tàmbaal nekkoon. Mhm. Mamadou Kassé gaañu mhm. mooy papa yi Moustapha Kassé directeur euh, professeur Kassé. son père. ak Aziz Kassé sama maam la. kooku moo ñëw sama papa ko dama bëggoon nga ñëw indil ma yu mooy jox ma Moustapha mu ñëw fekk ma Tamba mu wutal ko ay ñaan parce que coow li bari na ci moom wallaahi. ba léegi dawuma Tamba. Euh, euh. pour dire ca maanaam mënumaa jàpp ndax yàlla moo bindee ànd ak bayre ah. bayre boobu nag moo waral tey mhm. bu ñëwee Dakar dama bayre boobu topp ma mhm. bu ma ñëwee compagnie sucrière di jóg a kadaanu di wut ay quota sucre nee naa li ma may sax am capital sucre bi ma doon wut quota sucre bi ma doon compagnie sucrière di wut mhm. ay 5 tonnes 10 tonnes di jaay kaw nag moo may chaque semaine ma mën a am 200000 francs 300000 francs loolu laa daje ba am 10 millions maa ngi Dakar 60 83 janvier 83 laa soog a njëkk ubbi son premier magasin à la rue euh, premier magasin avec un capital de 10 millions de francs. Mhm. Fleurus ba ma koy ubbi. aw sax man lu ma joxee fonds de commerce. Mhm. te xam nga fonds de commerce dafa xew Dakar. Mhm. boo ñëwee ñun la pas de porte ak caabi yi il faut ñu jaay la ko. il faut nga joxe 3 millions 4 millions. man mënu ma ko euh, après daal ci nga ci nga. di jënd sucre di ci laa xamante ak compagnie sucrière. avant sax may installé wu fekk na ñun nekkoon nañ client Compagne Sucrière bu may nekk Kaolack. Ah. bi ma ñëwee Dakar ñu nekkaat ko client wu Compagne Sucrière. Mm-hmm. bi ñun avant Compagne Sucrière Kappa lañ doon jëndee sucre bi maa ko jëndee Kappa. 10 mm-hmm. tonnes bi 634 000 ñu xëy bis rek ñu joxe benn note ni léegi Kappa amatul droit importer sucre. Mm-hmm. sucre bi léegi exclusivité bi. compagnie sucrière moo ko moom. ñu ne fu compagnie sucrière nekk ñu ni biir Grand Moulin. ñu ñëw biir Grand Moulin ñu won ñu benn bureau. foofa ñu tagal ñu fa benn sucre boo xam ne benn échantillon. Mhm. ni lii mooy échantillon sucre bi Grand Moulin di jaayee. ñu ni ban prix ñu ni deux cent neuf francs au lieu de soixante trois francs quarante. Mhm. donc du simple au triple. Mhm. xam nga yow mënoo par exemple di jënd ci suukar 63 francs 40. ñu xëy jox kii exclusivité ba pare ñëw defal ko ko ñu ñu koy jënd léegi à partir de ce moment 209 francs. 209 francs ak 363 40 c'est c'est du simple ba yàlla def. mu ñu nekk ci loolu nekk ci loolu nekk ci loolu de 60 euh, boo fekk na moom mi ngi yor mi ngi yor ex boobu bi ñu bi koy jox exclusive boobu ma Kaolack mm-hmm. bi ñu bi bi may ñëw dakaar fekk na moom yor na exclusive ba ba ba presque mu am 7 ans mm-hmm. bi ma ñëwee nag ma dem di wuti sucre foofu bu ma mm-hmm. ñëwee pour ma am quota pour mu mën a facturer day jafe parce que amoo amoo moo quota mais damay wuti ay commerçant yoo xam ni am nañ seen quota doon fonctionner pour xëy arrêter ñooñu laay seeti ñu defal ma procuration ma ñëw ah. programmé ci ñooñu mm-hmm. ci laa doon amee ay 5 tonnes 10 tonnes par semaine mm-hmm. su ko defee su ma amee 10 tonnes mm-hmm. dana am 200 000 wala 300 000 ah. loolu laay dajale nag ba ubbi ci magasin bi en 2003 ah. en 83 alors au ñu wax si actualité denrées alimentaires yi mm. euh, daal alimentaire dafa bari coow. Mhm. récemment rek gis nañ ci poor bi am na ay conteneurs yu jóge Dubaï Dubaï yu fi andi suukar soo xamante ni c'est par fraude ñu dégg ñu gis ni fraude bi bari na ci d'ailleurs yow sax yaakaar naa en 2004 euh, amoon nga problème ak douane est-ce que mën nga ñëw ci loolu. waaw 2004 euh, maanaam euh, problème bi du problème sax. Mhm. c'est un problème monté. Mhm. un dossier monté de toutes pièces. par boo xam ne par le régime précédent le régime moo recevoir ci suukar bi ni moom. affaire comme xamante nañ. te mhm. man client laa woon compagnie sucre euh, CBAO bi mu moom. Mhm. nekk client compagnie sucre bu ma soxlaa mën na ma jot. ma ñëw mhm. mu ne ma dafa jaaxle dafa bëggoon ma conseiller ko ci affaire sucre bi ma wax ko ma xalaat mais la ma ko xalaatoon mooy ni ko dangaa jum ci projet bi projet bi waroo koon def xam ne loolu naqari ko mu dem ci wàdd wàdd woolu ma ma ñëw ñu wax affaire ceeb ba ñu waxee affaire ceeb ba pare ah mu ni moom dana jël ay mesures ci conseil présidentiel bi. dafa mu organiser conseil président ba mhm. daal di organiser conseil beneen pour su fraude bi. Mimran mhm. moo commandité loolu bi ñu organiser conseil présidentiel sur la fraude ci la defee benn comité de lutte. boo mhm. xam ne Cheikh Tidiane Sy moo ko doon diriger. Cheikh Tidiane Sy boobu moo doon woote ay réunion bureau di woo douane gendarmerie et tout ça. douane nag ñaar ñi leen ñi doon représenté douane. ci réunion yooyu Moustapha Moustapha Diagne la ak Jean Armand Nanga Moustapha Diagne boobu. moom la nommé directeur des enquêtes. Mhm. Armand Nangaa mu def ko directeur général des des douanes. ñaar ñooñu bu leen nommé ñoom ñoo war douane. Mhm. mooy fabriquer dossier bi kii mooy exécuté. naan euh, Moustapha Diagne daal di fabriquer le dossier un faux dossier comme ni mu la ko waxee. Mhm. xam nga faux dossier mooy leen nga toog rek naan waaw tax naan naan tàppale loo neex nii amel naa 600 millions douane. te tegul fet te 600 millions ni nga koy waxee mooy man day fay naa douane ba pare mais péréquation. mooy lan. taxe bi nga xam ne boo fay douane ba pare dañ ko ciy tegaat. Mhm. pour yéegal sa prix pour mu tolloog prix Mimran xam nga kooku bariwul ba bu bari te même bu baree ki koy calculer xam na ko xam na système bi mu koy defee. Mhm. waaw mais bu ci jumee yow yow bu ci juumee lu sa yoon moom xam nga yow ñëw nga en bonne fois déclaré. Mhm. jaar si biro bi. dédouané bëccëg jox leen ñu calculer xool ba jox la sa bon. acquitté nga jël sa marchandise dem jaayi. waaw bu fraude day am kay xanaa ka ca frontière bay daw la war a dàqi comme suukar boobu nga wax ne moo dugg ci. <laughs> Euh, président Macky Sall dafa jëloon décision mu daal di ñëw. Uh-huh. créer dossier bu mel noonu xam nga loolu ay fen la. Uh-huh. waaw dossier fen nag mënoo koo jël di ko envoyé tribunal muy am ndam kon il faut nga am juge boo xam ne dafa ànd ak yow ci loolu juge boobu lañ jël yónnee ko dossier bi. Uh-huh. te avant ñu ko yónnee dossier bi nee nañ ma juge sangam moo la war a arrêté. ni la sëñ Saliou Mbacké rek moo ci man dara ma ne man du ma dem ci juge bi seet ko ni ko waaw sëñ bi da ngaa sama benn dossier mu ne ma déet yoruma ko mais maa ngi koy séntu yow juge nu mën a xamee ni yoon am na dossier bu war a ñëw ci moom <laughs> bi ma ma ne ko kon xanaa bu ñu bu wax ci jotee ma toogee ab diir mu woolu ma ma ñëw bi ma ñëwee néewu ma lii nga def néewu ma laa nga def néewu ma demal transiger daf ma jël rek ci kaso bi ngi mel ni nga dajeeg ni rek ko dugal ci violon bi wala nga jàpp ko tëj ko fenn ni nañ ma jox tant de <laughs> wala du génn woo papaam joxee 10 millions wala du ma bàyyi sa doom noonu la mel léegi mu jël dugal ma ci kaso bi ba le lendemain mu génne ma ma foog ne damay entendre dans le fond avocat yëpp ñëw constitué mu ne ma waaw dama doon laaj rek parce que dañ ne ma hmm. dama la doon laaj xaalis ma tëj la ma ne ko yow yaa dégg naa ay rumeur ma naan naa nekk ci kaso ay rumeur donc bu fekkee ne am na loo xam ne waroon nga ko def laaj démb démb nga ko waroon laaj hmm. mais bul def di def maanaam mel ni yaa ngi liggéey te hmm. liggéeyoo yow li nga war a def defoo ko da ma war na entendre mhm. inculpé ma bu ma defee dara mhm. soog mhm. ma placé entendre oo ma inculpé ma dugal nga ma ci kaso bi ma fanaan fa léegi nag maa ngi lay seetaan moom mu dem vacances quarante cinq jours dossier bi mu bàyyi ko fi dem avocat yi man leen yéen dossier bi teguwul ci yoon dossier boo xam dañ la jël rek dugal ci kaso comme mel ni koy rabas te dossier boo xam ne li ci wax ay fen la mais dem leen attaque euh, xam nga dossier état avocat yi la ñu àndal ñu waaw waaw waaw après kenn yënguwul du ndoy ñëw keneen ñël sa racket la dañuy jël sa xaalis duñ def dara du ndoy ñëw ni ma woy man man naa seeti Wade dem seeti Wade ñëw ni ma léegi eh, Wade ne wax loo fa te avant muy dem jox naa ko ay honorable il ma réclamé six millions yoo xam ne bougé wul sax du ndoy ma jox ko xaalis parce que du ma xëccoog moom ci ay affaire am la laaj na six millions ñu jël ko six millions jox ko mu dem ni day seeti Wade ba mu seetee Wade dellu si ñëw ni ma Wade ne da nga wax loo mën a fay ma ne ko yow avocat nga wala homme d'affaires daat nee na waat nee na ko naax lu mën a fay du dossier bi noonu la mel <laughs> c'est un dossier politique c'est un dossier dara pour uh-huh. euh, di jeexee ci politique ndax président Macky Sall jëloon ne engagement ni daf koy loolu nga ci nan nga ci loolu la waroon noonu rek la mën a jeexee dossier politique moom ci politique la mën a jeexee ma ne woon waat ma ne woon Macky Sall mm-hmm. muy de wut réew mi di ñëw inaqua ma interpellé ko ni ko yow dossier bi ma lay wax xam nga ko parce que bi ñu may jàpp boobu yaa nekk yaa nekk premier ministre mm-hmm. dem assemblée bi nga demee assemblée sax pour preuve Iba Der interpellé woon na la di la laaj ci dossier bi waxoo ci waaye nag ku la amal bët ku ko neex ngay xool mm-hmm. j'ai compris léegi nag kii moom day daanu yaa koy remplacé bu ci yàlla andee dañ la jàppale pour nga falu waaye dañoo bëggoon boo falo nga ñëw da nga war réparer injustice yi Abdoulaye mm-hmm. Wade moo tax ñëpp jàppale la pour boo faloo kon da nga war réparer injustice yi mu defoon yëpp en commençant par sama bos sama dos moom du ma la jox dara xam nga ko dossier baa ngi tege mu wa mu ñëw nii bu paree mu jël parole ni moom bu faloo dana ko régler dana ubbi dossier bi xool ko su fekkee ne li ma def tegu na ci yoon ñu teg ma lañu ma war a teg bu ma def tegul ci yoon ñu delloo ma sama alal dàmp ma réhabilité ça c'est 2012 la ma ko wax ba 2015 2012 boobu bi bi mu faloo décembre mu ñëw organiser benn CPI Euh, conseil euh, fële conseil présidentiel de l'investissement conseil présidentiel uh-huh. fële au niveau du méridien président mais interpellé ko foofu ci conseil bi mu ni ma bu affaire bi pare na presque bu ma falaw léegi liggéey naa ci ba presque affaire bi jeex na léegi ñu fay la sa xaalis ma ne ko nag man fay xaalis gi am na solo mais amul solo pour man li ëpp solo mooy ñu ubbi dossier bi xam ni mu demee mm-hmm. suñ mooy waree réhabilité ñu defal ma un non lieu mm-hmm. def ko ci journal mm-hmm. officiel ah. ma loolu amul benn problème 2015 ñu ngi nii ba léegi dara. dossier bu mujjeegul fenn. ba léegi dara bougé wul. Uh-huh. léegi nag loolu laa xamul lu ko waral li ko waral laa xamul. parce que man uh-huh. mënu ma comprendre un président nekk fi def ay ay njombeem ba ñu balayee ko. Uh-huh. remplacer la ko ni la nga ñëw remplacer kooku defoon njombe yi yow boo ñëwee kay xanaa li nga war a njëkk a def mooy nga nga nga ubbi yooyu yëpp xool. loolu moo waral ñuy poursuivre Karim Wade loolu moo waral ñuy wax traque des biens effectivement mais loolu bu fekkee ni amul ana kon lan moo taxoon ñu fiy jëlewaat. effectivement. bu euh, euh, fekkee dañ fay jëlewaat nag. Mhm. te ñi commandité woon affaire bi. muy ñooñu ma la wax. Mhm. Mimran boobu ak ñu mu àndal. Mhm. bu fekkee ne ñooñu ñoo fi nekk ba léegi waaf seen kow du du mën a régler. effectivement parce que Wade dem na mais commanditaire yaa ngi fi. Mhm. Euh, mbokk seetaan si seen site gfm point sn yéen a seen biir émission euh, point par point ñu si dalal Moustapha Tall di importateur commerçant di président MICDPN mouvement des importateurs et commercant des denrées de première nécessité alors Moustapha Tall dañuy egsi si situation denrée alimentaire euh, mhm. actuellement. Mhm. gis nañ nag ni président Macky Sall bi mu yéegee ba léegi a pas y' a pas de loolu naka nga ko jàngatee. non man ni ma loolu. Euh, une un marché bu désorganisé bu désorganisé rek nit ñi danañ liggéey sax di laaj di jaay à perte te duñ ci rendre compte effet de masse mooy tax. Mhm. ak xëccoo bi maanaam ku ne da ngay bëgg a njëkk a jaay sa morom wu ñu ci pëccëxoo la. Mhm. prix yi du toog day daanu rek. Mhm. mais nag bis bu rupture amee. réveil brutal lay doon. bis bu pénurie amee rabais bulletin lay am. bis bu augmentation amee. Mhm. rabais bulletin d' ailleurs FAO pour actualité FAO wax nañ ni crise alimentaire nan la am Sénégal. Ah. loolu noonu loo tiitoo ci. li mën nekk parce que euh, mbay mi dox doxul nit ñi bàyyi bàyyeetuñu daanaka booy xol gerte lañuy bay pour dunde mhm. bayetuñu dugub pour dunde gerte googu ñuy bay doxu doxul na war a doxee mhm. li li ñor ci gerte na war a demee demewu ni waaw léegi euh, te bay gerte googu lañ waroon a jaay pour mën a am luñ dunde kon am nañ problème ci li ñuy def suñu poche autosuffisance en riz bi nag. autosuffisance en riz bi aussi euh, li nga xam ni moom lay wax ni moom lañ bëgg a def 2017. Mhm. pour autosuffisance en 2017. Mhm. pour man gàtt na. deux ans deux ans date bi date bi dafa jege. pour nga mën a wax ay 2017 ki 2020. Mhm. na nga tag na nga na nga organiser mbir mi. teg ko ci yoon woo xam ni dana la wóor ni day dox. ba d' abord ni nga koy organiser mooy nga fexe ba nga xam ni li ñuy bay ci réew mi nga mën a xam ñaata la sax d' abord. ak nan lañ koy bay ak fan lañ koy bay ñan ñoo koy bay mhm. waaye du lu ñuy estimer nii rek comme ça di wax ni ci ngelaw loolu lu ñu la wax mhm. dañ ko war a prouver ci ay lu concret maanaa euh, euh, cinq cent mille tonnes lañ bay mhm. fii lañ ko bay fii lañ ko jaayee mu nekk ci benn canal boo xam ni c'est vérifiable par exemple bu ñu nee saet moo jaay ceeb bi ñu mën a mm-hmm. xam ni saet la jaar mm-hmm. su fekkee dañ beneen structure moo koy jaay ñu xam ko mm-hmm. mais yow ku ne nekk sa roq di di jaay di bay di jaay di wala ngay bojj wala ngay xam loo def ñu jekki-jekki rek naan bay nañ 300000 tonnes wala 400000 tonnes ba pare ni am nañ objectif 1 million tonnes pour man loolu mënul dox te ceeb dafa sensible du loo xam ni mën nga xëy arrêté du loo xam ni da ngay xëy décrété ni kii importé na bu kii importé loo ci def loo ci def lu mu tuuti tuuti mu indi problème loolu ci def laax de. lu mu tuuti mhm. ku weddi crise de 2008 bi mu amee ni ñu géré woon euh, subvention bi. Mhm. bien que géré nañ ko mais amoon nay jafe mais parce que dafa dafa doon dafa cheroon état bi di subventionné léegi nag bu ñu subventionné nga génne ceeb bi jaay ko li ñu doon génne wóor nañu mën a doy population bi mais nit ñi dañ ko doon jënd di denc. Mhm. parce que dañ ni ceeb bi dafa cher. léegi état bi subventionné na ko donc xamuñ kañ li subvention bi jeex. boo waree sax jënd benn saako dem jënd 10 sacs. wala nga jënd vingt sacs. Mhm. donc lu génn dem donc c' sensible. Mhm. Euh. pour nag loolu mënoon a réussir. waaw solution yi pour mu mënoon dox. solution yi ñun dañ cee jàppoon suñ dañ cee tegoon suñu loxo. ja mhm. accompagner ko moo tax amuloon problème. te bokkoon naa man ci ñi nga xam ni ñoo ci doon jàpp pour mu dox. bu ngeen ko fàttalikoo booba temps crise bi dama daan wax tout le temps presse bi ñëw ma leen di wax li xew wax li ñu war a def. ba ñu dem ba crise bi jàll. sortie de crise bi crise bi jàllee. bi ñu évaluer état bi perte na cinquante milliards ñun perte nañ ci lépp cent milliards. loolu xam nga ne amul njëriñ. Mhm. te loolu yëpp man bu fekkoon ne déggoon na la ma ko waxoon en 2003. Mhm. loolu du am kon 2008 dañuy wax autosuffisance 2008 waxuñu autosuffisance ñu am crise mhm. ñu gérer crise boobu ba crise ba jàll ñu indi mu waar ma ni ma léegi lan mooy solution pour boo xam ne mën nañ ko teg loo xam ne du amati problème. ma indil ko SPCRS mooy li ma lay wax léegi ni la il faut mu am benn canal affaire bi jaar kanaal boobu moo nekk SPCRS société de promotion euh, de du riz et de commercialisation du riz mhm. man sama idée la ñu wax benn cabinet d' expert cabinet boobu moo xalaat bi ma waxee ba pare. bi mhm. ma joxee idée bi Wade dafa ni pour mu valider ko il faut ay expert wax ci experts yi daal di xalaat bind. Mhm. ñëw seet si ba mu wax leen ñu daal di def seen rapport ñu fay leen mu soog a jox ndigal ministre du commerce pour ñu taxawal société bi waaw mais bu ñu taxawalee société bi ba pare te amul ni nga xam ne mesure bi mu war a àndal pour dox taxawal ko rek te amul ay tànk dox taxawal nañ ko. idée bi baax na. Mhm. mooy lan ñi ko war a bokk bokk ko ñu ñëw def suñu xaalis. Mhm. mais dañoo war a xalaat nan la ñuy def ba mu dox. Mhm. maanaam mu am ay tànk pour def ay ah. jéego loolu. mooy lan li koy doxal mooy garantie bi nga xam ne moom la ab actionnaire war a apporter. pour que bu ñu soxlaa prêt ñu mën ko am ci banque yi. garantie boobu actionnaire yi nga xam ne bëgguñu affaire bi dox nanguwuñ ko. actionnaire yooyu. bokk nañ société bi mais bëgguñ société bi dox ñooñu dañ ni ñoom d'accorduñ ci. maanaa garantir société bi. Mhm. waaw mais société boo jur ba pare boo créé ba pare ni du ma ko garantir na lay doxee yow yaa ko juddulu ba pare nga ni man du ma ko accompagner wóoluwuma ko garantir nga bëgg banque bi wóolu ko ban banque mooy dof yow nga indi sa société nanguwoo ca def sa loxo moom mu ci def xaalisam léegi may leen loolu bu ñu ko defee du ñu am benn financement mhm. gars yi ni ñoom ñu ne ñoom duñ ko def ñoom ñëpp ñu ànd duñ ko def parce que bëgguñ affaire bi dox ministre du xam ne nag moom la balaa tegoon pour mu doxal affaire bi amul matuk mën a xam loolu te wax naa ko ko ni ko boo bu fekkee nit defu defuñu li c'est pas la peine ñu taxawal société bi moo war na lay doon. Ah mu ni moom daal ñun am nañ tàmm tàmm nañoo taxawal société yooyu du ci dugg ma ne ko nag booba nga juum nag mosuñoo taxawal société boole la ci. tey bu ñu la ci boolee da ngaa war a ñëw xool. Mhm. niñ koy taxawale ndax war ngay arbitré loolu moo tax Abdoulaye Wade jox la ko. Mhm. mu ni man daal foofu laa yem ma ne ko d'accord tu verras mais biñ doxee tuuti. Mhm. ñu société bi mën la dox dañoo dellu si mu dajee gars yi daje daje ay réunion affaire bi bougé mu waa pourtant Moussa am na raison ci yéen mi ngi nii la leen waxoon na ngi nii mais est que loolu moo tax ñuy wax euh, am na raison man dama nekk di wutal sa raison mhm. man dama bëgg lu fekk lu doxal réew mi mhm. mais ay amante raison ci ay nit amul lu ma importance léegi Moussa Fatal euh, ñu egsi si eeru Macky Sall ndax li ñu fi wax yëpp yaakaar naa Abdoulaye Wade eeram euh, la loon léegi eeru Macky Sall ak plan Sénégal émergent bi naka nga ko jàngatee waaw eeru Macky Sall man dèjà li may njëkk a wax rek na ñuy wax waxee autosuffisance wax crise mhm. loolu lépp ñu géré ko moom 2012 mi am noonu société bu ñu wax interface. Mm-hmm. benn cabinet la xaw ma de d' expert ma lan. Mm-hmm. ñooñu ñoo ñëw seet si ma ne wàdd leen euh, Macky Sall moo leen yabal ci man. Mm-hmm. pour ñu ñëw waxtaan ak man ci affaire denrées alimentaires yi. nan la ñu war a def ba bu ñu jëlee réew mi affaire yomb ma defal leen lu raw li ma defal ay ay ay ay heures yi heure la ñu daje liggéey di liggéey ba ay vingt deux heures vingt trois heures ñu bind lépp loo lu question bu ñu bëgg a laaj laaj nañu ma ko ma tontu leen wax leen comme ni ma def ak rek. ñu man pour man. pour defar plan Sénégal émergent. xaw ma lu ñu doon defar mais yow daal dañuy Abdoulaye Macky Sall Macky Sall moo leen yabal ci man ubbil naa leen samay bunt recevoir naa leen wax naa ak ñoom li ma war a wax ñoom yóbbu nañ kayit yi xaw ma lu ñu ca def. Mm-hmm. la preuve. Mm-hmm. bi ñu demee sax ci biir campagne bi. Mm-hmm. am na benn euh, forum bu fekkee ma ci boole organisé woon. comme yaa koy fàttali comme def ah, ci terrain boobu nekk ci en face Walfadjri. waaw keroog maa fa nekkoon doon animé forum boobu. ak ñoom Momar Ndao yooyu yëpp fa laa yendu keroog pendant ce temps bi ngay dégg. boobu ña nga di wax ak Abdoulaye Wade pour xool nu mën a wàññi ceeb bi boobu ceeb bi dafa yëg Abdoulaye Wade foog ni commerçant yi ñu yëgal ceeb pour mu daanu te booba benn commerçant yëgalu ceeb bi man xam naa li may wax mm-hmm. kenn yëgalu bi yëg mu tiit woo inaakuoi man boobu maa nga fële di animé xamoon na ni ànduma ak moom que maa nga ca opposition bi mm-hmm. ñoom ña nga woon ak Abdoulaye Wade mooy gars yi tax fu Macky Sall fi ne nii tey Macky Sall fal na ñëw tafu ko ah kon ànduñoo kenn ànduñoo Macky Sall ànduñoo ko xam seen poche fu seen ceeb di rek mm-hmm. man nag loolu tax ma jóg xam man lu ma tax a jóg. Mhm. réew mi am avancé nit ñi am jàmm xale yi am liggéey réew mi avancé man dépassé naa ay xaalis yu may def sama poche. Mhm. ndax ci loolu laa judd autosuffisance en riz dafa nekk euh, vecteur euh, par excellence d' emploi par excellence d' emploi et de développement. Ah. je sa assure que te président def cee yaakaar tamit. yaakaar na ci mais. ah ndax dina dox ndax dina dox ci yoon wi. Uh-huh. man sama warugar mooy ma ne ko yoon wi nga jël baaxul mais nag su may wax damay bëgg mu dégg ma. yoon wi ngay jël du yoon wa déglu moom ma teg la ci yoon wala book ñii nga xam ne ñoo lay wax ni yoon wi la dañ la démontrer man ma def sama chemin ñoom def seen chemin ah, ah, ah. lu yomb la su ma defee sama chemin wax fi may jaar ba ba atteindre ko mhm. ñoom ñu wax ñoo xam ne dañuy jëm poste garder seen poste le mhm. temps ñu nekk fa quelques mois am seeni i salaire am seen i avantage ñeneen ñi aussi tafu ko le temps ñu nekk ak moom au moins ñu ngi am na ñu profité man nag loolu tax ma jóg mhm. man loolu bu ma taxoon a jóg ca Wade laa koy def Wade bi fi nekkee su ma nangoon a def ak moom yi ñooñuy def kon li ñeneen ñi am milliardaires yi mu doon fabriqué ma bokk ca mais man milliardaires yi mu destitué laa bokk man dafa maa fekk ak sama teranga mu destitué ma am ñoo xam ne fekku leen ak dërëm mu jox leen def leen ay milliardaires euh, mbokk yi seen émission point par point foofu lay daal di jeex ndax euh, waxtu bu ñu mayoon jeex na xanaa ñu bàyyi la rek Moustapha nga wax sa sa kaddu waaw man de sama kaddu gu mujj daal mooy euh, dama bëgg a wax rek nii Euh, wax ak président bi. xamal ko ni ko réew daal bu fekkee ni dañu la jiital. teg la ci boppu réew mi. waruloo am rakk waroo am mag. waroo am xarit waroo am jabar waroo am doom. ñëpp ko war a yemale ku ne nga déglu ko. ku ne ku ne ci réew mi nekk ci bokk ci gaal gi. da nga ko war a déglu mu wax la xalaatam. xalaat ba bu jubee nga ànd ci moom mm-hmm. bu xalaat ba jubul nga xam ne xalaat ba jubul mm-hmm. bu ëllëgee nga xool beneen xalaat bu gën a jub nga jaar ca mm-hmm. su ko defee réew mën a avancé mais jiitu luñu kenn pour ngay def maanaam di ànd ak ñoom ñooy am ñooy àndal am ñooy xaritool am ñoo dul xaritool am ñooy waxal am ñoo dul waxal loolu moom mënul dem su ko bu ko defee it day am problème ca kanam parce que wadd bokk na ci li ko fi jëlee par parloo gi mu par parloo jël doomam teg ko ca kaw jël doom yi ñu teg ci suuf loolu tey lu ko dal loolu ko yóbbee loolu nag bëgguma mu dal ko te nag liy raam ci nag bi la jëm ndànk-ndànk lay dem ba xëy ni mëng da ngay def da nga koy moytu da ngay moytu boo bañee feebar da ngay moytu euh, ay microbe da ngay moytu ay infection mm-hmm. mais boo bañee feebar pare nag ni infection sama yoon niw ci lu ma mën di laal je suis immunisé day xëy rek daanu <laughs> voilà mbokk yi seen émission point par point jeex na ñu leen di ah. daje ba beneen yoon jërë jëf